dégg nañ la maire en personne moom mu ne ku wax ne place publique da koo jaay dina la tëj wala dina la indi problème mais bu ko jaay lan la ko def da koo jaay ñun gis nañ ne ñu ngi jaay cantine cantine 10 millions cantine 6 millions mais su ko jaayul kon lan la ko def donc ñun loolu moo ñu sékkati su fekkonte ne entreprise bi wala euh, promoteur dafa ñëw jënd espace boo xamante ne moo ko moomal boppam di ko tabax su boobaa kenn du ci dégg benn mbuuraa mu ciy wax wala ku ci wax dinañ leen ne ah yow ko da ngaa sob mais place askanu mbuur lañ bokk bu dara xewé ci mbour mu nek lo xamantene lérul leerul jubul na amna nañ droit taxaw nako señ bi kat leeralal biñ ko démé séti ñun parce ñun ci rek di ciow biñ démé séti la maire dañ ko séti ñun kat dañu bëgg xam lan nga bëgg def ci place bi parce gis nañ né gaay ya nga fa wala ñu ngi dégg ay rumeur que ni da ko bëgg a ko bëgg dag dagg ko bëgg jaay mu xamal ñu né dama bëgg a place bi ubi yoon yi défarat ko ba nga xam ne vraiment mburuwaay dinañ ci am accès ci bir place bi ñu conseillé ko ñun ci bop mu nañu lu ngeen ci xalaat ñun aussi ñu wax suñu xalaat ah ne ko ñun kat buñu sañon place publique bi mo fi nek fi place publique mu nañu fi amul dafa amul sécurité ñu ne ko manque de sécurité bi fi am lolu ci yow la yow maire yow gàcce la sax nga nan place publique bi amul sécurité parce que buñu xolé place publique ci digg dëkk bi la ci digg mbour la nek buñu toggé ci digg mbour ñu nan sécurité amu fi dafa salte kon préfet ligéyam defuko mer maire bi tamit ligéyam defuko parce que ñom ñofi fi nekkal dëkk bi te dañoo war a ñun ci suñu sécurité ñun bu ñu waxee place publique bi ay agresseur ñoo fay nekk ay góor jigéen ñoo fay nekk yaakaar naa loolu ñoom bu ñu ko déggee sax en tant que euh, le préfet wala en tant que le maire soo déggee loolu war ngaa ne ah kon man war naa xoolaat sama toogaay kon le préfet ñu ngi koy interpellé di ko wax ne mu bàyyi xel dëkk bi parce que coow yu bëri yow dégg fii ci dëkk bi bu dee wàllu këyit la boo fa demee di nga dégg ne ah préfet kat def na signature fii mais def na signature am fii kii ak kii def na signature am kon loolu nekk na mbir moo xamante ne bëggu nañ si ay leeral place publique bi nag du ñu seetaan fàllu si la di ko jaay parce que da koo jaay bañ na nak ne ku wax ne da koo jaay dina la indi problème mais da koo jaay dem nañ ci mom séti ko ne ko dañu soxla acte d'appel dañu soxla acte d'appel d'offre parce que bu def nga appel d'offre pour pour ñu xam ban kan mo meuna ñew pour tabaxal ñu li nga xamantene moy moy li ñu bëgg tabax fi mu nañu lolu amna mais mënu ma leen ko won yëkëti benn kër la yëkëti ni rek ne mu ngi lolu amna mais duma leen ko won ngeen koy photo kon koku deful lu jup du fekkee ne bi am na appel d'offre li mu war a am yëpp am na ko dina génne kayit même bu ñu ko joxul sax mais mu won ñu ko ñun ñu xool wala ñu publier ko parce que loolu dafa nekk loo xamante ne waruñu koo nëbb lu ne koo jeex donc place publique suñu place publique la ñun waa Mbour du ñu seetaan mu koy dagg nii nii nag ku xool ku jaar ci place publique bi di nga xam ne tàmbali nañ liggéey parce que liggéey bi mu amee kat am na ñi nga xamante ne ñoo dëkk biir 11 novembre pare woon nañ pour porter combat bi ànd ci ak ñun waa Mbour si d'ailleurs sax ñu ngi fii ci biir mbooloo mi ñun ak ñoom dem nañ ba des Descos porté ko plainte yóbbu ko Descos ñëw arrêté liggéey bi pour quelques jours rek après ñu gis ne liggéey bi tàmbali na di liggéey booy xeex ak ñu nga xamante ne dañoo bëri doole il faut nga def ndànk te yaa xam yàqamti xeex bi gis nañ ne ñoom dèjà tàmbali nañ ñu ngi si liggéey bi ñu ngi daanaka li nekkoon ci place bi yëpp dindi nañ ko gis nañ aussi tamit li nga xamante ne moo fa nekkoon mooy cocotier yeeg yenn affaires yi ñu ngi koy jël di ko séddoo conseil ñenn ñi jël nañ ko di ko samp seen buntu kër yi yenn ñu ngi koy jël di ko samp ci ci buntu stade bi jël di ko samp ci biir ci buntu mairie bi pour jéemoon nax askan wi instant bi pour bëggoon noppiloo askan wi rek commencé nañ li nga xamante ne sax ci ay engagement wu benn société bu fu ñëwoon maanaam Auchan engagement yi mu jëloon ne dinañ dina tabaxal Mbour benn esplanade bu mag ci buntu stade bi bi ñu dajjee place publique bi rek commencé nañ ñoom di profité naan dañuy jéem a tabax beneen place publique ci buntu stade bi mais loolu Mbour waaye nañ xam ne ay nax la gis nga travaux yooyu du dem fenn dèjà am na benn centre culturel boo xamante ne aussi ñu ngi koy tabax fii ci buntu mairie bi ñu ngi jël bagage yi nga xamante ne ñoo fi nekk di ko yóbbuwaat foofu pour di jéem a bëlëfee doomu aadama yi di jéem a bëlëfee nit ñi matériel yi nga xamante ne moo desoon centre culturel bi ñu ngi koy jëlee fii ne moom la ñuy egg liggéey place publique bi xamante ne moom moo nekk ci côté Stade Caroline Faye kon dèjà damay wax mburuwaay ñu gën a yeewu askan wi ñu yeewu xam ne maire bi ñu am vraiment askan wi taxu koo jóg parce que nag du fekkee marché moderne lañ bëgg tabax mais demal marché ngelaw amna marché moderne bo mën nga fa tabax ben marché moderne marché central bi so fi démé mais bo xolé ci kaw da ngay gis assemblée ci suñu yaay bu tawé dootu ñu am fuñu dem mais buñu bëggé tabax marché moderne nañ dem fa tabax fa marché moderne mais mënu ñu jël suñu place publique bi dag ko diko jaay ay cantine 10 millions cantine 6 millions kon ñuy askanu taxul leena jog jóg ñëw nak pour alerter askan wi ñu xamné ñun mbur lañ am yemul rek tok ci Facebook bi di wax Fallou le defu fi dara wala mu ngi jaay suñu souf si espace bu des ci mbuur gis nañ ñoom ñu ngi koy jëm a dagg di ko def ay parcelles di ko jéem a dagg di ko jaay te xaalis bi kenn du xam fu mu jëm donc ñun xam nañ ne promoteur bi mu ngi dagg di jaay kon promoteur bi li ko liyee ak ak commerçant yenn commerçant yu am doole yi nekk biir mbuur ñun xam nañ ko mais li ñu bëgg a xam mooy lan moo liyee promoteur bi ak le maire Fallou Sy lan moo leen liyee contrat boobu ñun war nañ koo xam war nañoo xam lan la maire bi signé ak promoteur bi ak Mbour dans tout ça Mbour lan lay gañe ci suñu place bi ñu dagg di def ay magasin délibération aussi tamit amul municipal am am na ci ay conseils yoo xamante ne ba léegi ñun ñu ngi ànd ak ñoom ci xeex parce que ñoom ay conseils lañ fekkee ne fi mbiri di xewee nee nañ mosuñoo gis fu ñu délibéré loolu noonu donc loolu nekk na mbir moo xamante ne ñun war nañ cee bàyyi xel contrat bi nga xamante ne moo ko lié ak le promoteur tamit ñu war nañ koo mën a gis war a xam lan la suñu suuf suñu joxe ñu war nañu xam ci yan raison lañ ko joxe ci yan condition lañ ko joxe loolu dañ ko wara xam waaw préfet bo gisé ñu tuddu ko ñun mbir yi ñu xey di ci wax dañoo dem descos toog ak commandant bi mu gën ñu ay kër yo xamantene signature préfet da cey nekk kon mënuñoo wax ñun te ñu préfet te préfet moy kilifa dëkk bi fi ku fuy tabax préfet ne la taxawal da ngay da ngay taxaw par awbe da ngay taxaw parce que moom moy kilifa dëkk bi bu ñu mënee wax moy Macky Sall mbour sax moom lañ yo parce que ñom ñep nak moom mo leen chefé te dossier Auchan bi dégg nañ ko ci ci ci euh, pose première pierre bi nga xamante ne centre culturel bi ñu bëggoon tabax fii dégg nañ ko ci mu waxoon ne am na ay manquement mais tew liggéey bàyyi continuer mais dossier boo gisee ñu woo ko ci mooy bi ñu demee Descos gis nañ fa signature kon yoon la ñu tudd si turu préfet mu xoolaat dossier bi xam ne mbur waaye mbir mi dafa lëndëm ci ñoom bu baax a baax te nag dañoo bëgg mu leer moo tax ñu tudd ko si te en tant que kilifa nag dëkk ci dëkk bi ñu ngi ko ciy xaar bu baax waxuñu sax mu def ci sorti bu ñu ngi ko ciy xaar bu baax mu leeralal ñu exactement problème bi lan la fan la mbir yi lëndëmee Thank you